kenn mënu koo def lu ko neexul ah. ni mu toll doole jëpp na ko. Ah. gis ngeen dégg ngeen Père Max nee du la see jël na ko wee waa lii lan la tekk na ko du saane ba di temps la lay la la eh ji lamb. final quel très bel final. leen public bi. bëre feeñ na. bandi 40 ans. battante nañ wëndeelu nañ taxawaat. kii bandi 50 ans la. kii bandi lasta wenger la. eh du saane. Doudou Sané tey jeexle na. Doudou Sané yem na tey yem na. yem na client moom Doudou Sané. boo xam ne xamul fu mu koy yëkkalee Ouzin. tey jii làmb. Doudou Sané bandi 40 ans. ñoo ngi ci digg géew bi ñoom ñaar. final poids lourd. Ouzin man damaa waxoon cameraman laa bu sawar ci làmb. mais léegi damaa commencé bëgg làmb. ndax lii dafa neex da nga yëg sa bopp bu baax a baax a baax. li cosaan la kàggu. boo ko ñemee doo ko dolli. abit baa ngi ñoom laaj na leen ku ne pare nga mu ay jugeem abit bi sifle na Doudou Sané Bandit 40 ans Bandit 40 ans à gauche Doudou Sané à droite Bandit 40 ans ñoo na yooyu rek jàpp ko ñoo ngi lewaatoo Doudou Sané Doudou Sané Bandit 40 ans Bandit daw na takk ko Doudou Sané biij na ko mu bañ añ na ko ëñ na ko Bandika Anta Doudou Sané Doudou Sané jàpp na Doudou Sané jàpp na Doudou saane jàpp na Doudou Sané jàpp na Doudou Sané Bandika Anta moo ngi Bandika Anta daa bañ Doudou Sané Bandika Anta Doudou Sané nengeñ na ko Doudou Sané nengeñ na ko moo ngi yor loxo ci gaño bi Doudou Sané fi mu jàpp baax na Doudou Sané fi mu jàpp baax na jàppul Doudou Sané Bandit 40 ans jàpp na moo ngi yor loxo bi ci ginnaaw añ na ko da lu mu koy def eh, Bandit 40 bañ na ko yónnu ba ci kaw waaye amul Doudou Sané bandi 40 ans eh, xale bi na ma ko fay ma sa waxee woon saw diis la Doudou Sané bandi 40 ans Doudou am na ñaari loxo ci ngemb bandi 40 ans jàppul fenn Doudou Sané bandi 40 ans bandi 40 ans ko léegi benn loxo baa ngi ci biir benn baa ngi ci kaw ngemb li Doudou saane jàpp na Doudou Sané Bandika altan ñoo ngi déglante ñoom ñaar Doudou Sané jàpp na nengeñ Doudou saane Bandika altan Doudou Sané jàpp na ndengeñ Doudou Sané Doudou Sané Bandika en ku nekk ngi jàpp di déglu sa morom waaye Doudou Sané kon ndengeñ ndengeñ bi dafa mel ni dafa commencé sonal Bandika en temps génnewaat na loxo bi dugalaat na ko ci biir Doudou Sané ngi jàpp na tekk di ko déglu ah du Bandika en temps bi nga sigi est baax na. final mbokk yi ñoo fi ci Joal Fadiouth dimanche le 28 mars moo nga may wet Bandika en ba wóor na dangay daanu wóor na ko ndombo na ko ndombo trois appuis Doudou Sané Bandika en na dangay da ah, daanoogul daanu daanu na daanu na Doudou Sané Doudou Sané